nomme Aliou Ngom, j'incarne le rôle de, de Guèye dans La Graine du Pouvoir. Alors, donc, on va dire que si c'est pas la première fois, mais c'est quand même un peu rare mm. de voir dans des films déjà qui s'exprime en français dans le film, sans pour autant employer le ton serrère. Mm. Alors mm. vous, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu ce, rôle-là? <laughs> naturellement, parce que je suis sérère, j'habite à Sandiara, je suis sérère dans le sang. Donc, euh, du coup, et là, je peux dire que les personnages, c'est moi-même en tant que Et après, pour, pour incarner le rôle, c'était vraiment facile à le faire. Quoi. Donc, euh, je, suis comme ça, donc euh, quand on m'a donné le rôle, c'était vraiment facile à gérer ce rôle. Et vous incarnez le rôle de leader parce que, vous savez, en Afrique, <clears throat> ça manque un peu de leadership. Donc, le leadership, il faut, faut vraiment faire la différence entre leader et un patron. Donc, le leader, c'est lui qui, montre la voie, qui montre aux gens ce que c'est possible. qui montre aux gens que vraiment on peut le faire ensemble. Je pense que c'est ça le rôle d'un leader. Alors par rapport à qu'est-ce que vous voulez montrer Parce qu'on a vu d'habitude les gens qui sont anti ils ne, ils ne tiennent jamais tête à leur patron. Et vous, on a vu, vous avez tenu tête à votre patron. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers votre Bon, ça, comme vous le savez, hein, ça, juste que c'était juste pour leur montrer qu'il faut que les Sénégalais, bien les Africains en réalité, euh, essayent euh, de faire la différence entre, euh, comment dire encore, c'est la notion de supériorité et d'infériorité. C'est-à-dire les patrons, Il faut juste savoir que c'est des patrons. Vous travaillez pour eux et vous êtes salarié. Vous avez votre expérience, ils ont besoin de toi comme vous avez besoin de lui. Donc c'est tout simplement ça. À part le rôle d'un patron et, son, et son, son, emploi, il doit avoir le respect. Il doit avoir vraiment le respect et voilà, ça. ci wolof donc ñu gis la nga incarné rôle paysan bi donc comme ni ma ko waxee c'est rare bu fekkee ni am na tamit c'est très rare ñu gis ku ñu jox rôle boobu noonu ngay làkk déjà tubaab euh, aussi sans pour autant utiliser le le ton donc yow déjà rôle boobu noonu ndax nga ko dundee ak aussi comment c'est bon moom mooy comme ni ma leen wax léegi rek euh, man je suis séeréer dans le sens Sandiara laa dëkk donc euh, c'était vraiment facile yomboon na trop pour ñu def rôle boobu parce que comme ni ma ko waxee léegi nii. rôle boobu dafa ñëw naturellement comme man ni ma tudd ak ni ma ni ma mel en en réalité je pense que rôle boobu noonu rek la noonu rek la demee c'était vraiment facile ñu def ko mhm. comme ni ko sama naataango bi laajale léegi dañuy gis parfois ñi nga xam ni euh, dañ leen di woowee ñoo xam ne dañu néew doole comme ay paysans ngay liggéey daal. entre mhm. liggéey euh, patron bi ak ki nga xam ne moo di employé bi. parfois dañuy gis dañ leen patron yi dañ leen gis ni nangu ko parce que voilà tu as tenu tête à patron donc lan moo taxoon déjà ak ban message nga bëgg a wane ci loolu bon message bi ma a wane juste que mooy pour wan nit ñi ne que ne patron ay nit lañ rek malgré ne di ko respecté dina la respecté parce que da yor sa alal sa xam-xam moom mu yor alalam donc da ñëw di liggéey moom mu lay fay nga koy liggéey je pense que respect nekk def aussi ngeen liggéey am même temps aussi nit ñi aussi bañ am complexe seen patron yi parce que am complexe bi mooy que tey mën nga li ngay def yaa ngi liggéey mais su fekkee dafa am injustice bi ci am je pense que yow war nga mën a am euh, yaqin ñëw taxaw ak sa patron wax ko li nga xam moom nga xalaat. def na di ba léegi gis ngeen ni taxawal nag xam naa ne fi mu toll nii mi ngeen seen kanam baax a baax parce que yéen a ngi gis euh, annonce bi nga xam ne nii waa Marodi ñoo koy def may demee di bàyyi ñu daal di maaleykum salaam. tur bi naka la. Tanor Ka. Tanor teewaayu fii. euh, projection avant-première ou euh, la grande du pouvoir en fait. alors du pouvoir gis nañ annonce bi daay dem Sénégal yi bëri ñoo koy commencé di si waxtaane lan la mën a xaar si graine ah, ah lu bees lu mosul am avec de très grands acteurs et actrices de renommée et euh, mën naa leen wax leen inédit lay doon vous allez vraiment aimer cette série là. ñu gis ci annonce yaa ngi aalu dafa mel ni maanaam pas bu tàng lañu nar a fekk <laughs> ci la graine du pouvoir. oui mais personnage beeg et euh, réalisateur aussi il nous demande de, rentrer dans la peau de ce gars-là et on le fait en fait euh, c'est pour la première. Je suis pas comme. Euh, c'est grand monsieur c'est une première pour man ma ma benn euh, standing mais sinon j'ai fait quelques petites apparitions sur Impact et euh, le lancement aussi de des séances. Est-ce que c'était facile? <laughs> Oui, écoute, euh, on est tous des acteurs dans l'âme on des acteurs, dans la vraie vie aussi on est des acteurs Voilà. Donc euh, après, il faut simplement mettre en avant devant les caméras. C'est pas facile, mais euh, on va essayer. dañ xaar affaire yu muy demee. oui daal di peut-être yeneen yi nga xam ne chaque fois mooy du moom koy def boo di dañ tàmbal chaque fois série bu mu indi mu laay def ba Sénégal mën nañu ko xaar si biir. oui plus de likes. waaye ouais, il faut plus de likes plus waaye booster la, la page comme il le faut quoi en fait. Merci. Allez, je maa ngi tudd Aliou Ngom mais maa ngi euh, joué personnage Geyki Ndiaye dans la Graine du Pouvoir. yaa ngi Edo doon seen problème. poofu euh, du Edo c'est Serigne ah. Serigne Mbodj donc euh, voilà c'est mais <clears throat> personnage na nekk Serigne ci Graine du Pouvoir. bon loolu ay suspense la rek après incha allah boo leen gisee réalisation bi di ngeen xam lan mooy réellement problème bi mais faut juste ngeen comprendre la graine du pouvoir dafa nekk benn affaire boo xamante ni ça va vraiment refléter histoire yi nga xamante ne moom mooy am d'habitude ci ci ci ci sur le domaine foncier. donc euh, kii ngeen di gis c'est Tanor Ka donc euh, moom mooy nekk sama patron ci ci film bi waaw mais bon après incha allah rek di ngeen gis lépp rek donc à suivre quoi di ngeen gis lépp maison de production bu Marodi TV est-ce que c'est facile ak liggéey di liggéey ak ñoom. bon il faut savoir que ni Marodi c'est une famille ah c'est une famille et vraiment euh, ñu neex a liggéeyal lañ parce que boo demee déjà dañuy accueillir wan la ni fii nii nekkoo fi tout simplement un acteur mais nekk comme un membre de la famille. Donc vraiment, ça fait plaisir de travailler avec eux. Bon, on a eu un peu, comme Nico Tanor euh, des figurations avant l'impact du truc, mais c'était vite fait. Mais là, vraiment, c'est notre premier grand projet. donc te vraiment neex nañu liggéey trop trop trop macha allah. wax léegi Pod nee na da ngeen tàmmal Sénégalais film yoo xam ne bu ñëwee day def buzz Sénégal yëpp suivre ko mais à chaque fois quoi bi fu muy nekkee mooy deuxième saison changement d'acteur yooyu affaire yooyu est-ce que tout est clair si wàllu contrat yeeg lépp. écoutez bon xam nga loolu moom ce n'est pas notre domaine ñun suñu domaine mooy juste que nous sommes des acteurs dañu ñëw tout simplement jouer donc li li suñu côté contrat loolu moom vraiment dañ ko matal ba mat sëkk donc affaire deuxième saison nag moom ñun suñu suñu suñu souhait moo ñu dem sax ba six saisons bu fekkee neex na Sénégalais loolu moo suñu souhait. gis bon ni ma ko gisee tout simplement mooy c'est une bonne chose parce que déjà bu fekkee ni tey suñu yëf ñëw na tey pour jàppale industrie cinématographique sénégalaise bi donc foofu du ñu def lu dul rafetlu ko donc aussi war na inspirer aussi les sénégalais aussi ñoom aussi ñu ñu def la même chose pour mën a pousser aussi le cinéma sénégalais vers de l'avant. merci beaucoup. ah merci et ça